Euh, loolu. beaucoup de gens c'est que nag maslaa gi moo tax ñu exagéré. beaucoup de il faut des fois leur dire. non euh, non non arrêtez quoi. <laughs> non non non ba doon dara parce que parce que lépp dañ koy personnaliser. Mhm. de telle sorte que amuloo droit. Mhm. daal di ne ah Ousmane Sonko. Mhm. wala ba ci Macky Sall bi nga wax te bu ñu waxee si Macky Sall di nga xam ni. ah liberté bi ñu am. pour wax. Ousmane Sonko lañu xalat xalaat. Ah. moom la am pour wax Macky Sall li xalat xalaat. la wax lolu <laughs> Macky Sall. Macky Sall sa lettre la première chose man mbetteel laa si am. lu tax euh, mbetteel bi ma si njëkk a am mooy. Mhm. dama yaakaar ne lettre campagneul. ah bon lettre. lettre campagneul. <laughs> dafa waroon a ñëw. <laughs> TikTok sax wala WhatsApp sax moo moo tane <laughs> parce que la seule chose. Mhm. dama jox exemple rek. Mhm. Amadou am an bi nga invité keroog. waaw sama xarit la. Mhm. waaw sama frère la. Mhm. sama doomu ndey bu baax la. nit ku mhm. baax la nit ku jàng la. nit ku xarañ la macha allah dof yi rek ñoo xamul kan. Ah, waaw waaw non non nit ku xarañ la xam-xam euh, euh, daf ko bind. ba tey mais fu mu bindee am na ñoo xam ne duñ ko tontu. dëgg la.

Euh, lettre du yegg déjà de un sur la forme portée ba ko bëgg a jox du ko am mhm. parce que lettre mom mhm. danaka bon man génne naa ko génne naa ko sama journal c'est élitiste c'est élitiste euh, mardi la ko mhm. bëggoon a euh mais malheureusement ci la tombeek deju Mamadou Moustapha Ba ah, moom dañ euh, ci ah, ñëwaat vraiment loo tax mu génne ko ñu génne ko tay mais man je trouve que pour man euh amul impact wala bok du am impact bi mu ko bëgg jox Euh, euh, Macky Sall am na possibilité wax li mu xalaat ay nitam am nañ possibilité wax li mu xalaat mhm. man li ma gis ci lettre bi mhm. C'est vrai, c'est une très longue lettre. Oui, très longue <laughs> lettre. Mais j'ai tout lu quand même pour savoir quand même. J'avais besoin de ah savoir. <laughs> oui. Euh, ne mhm. l'état aussi, euh, choisir. de mhm. quand même hein. parce que nous, bon. Mhm. pour sauver le Sénégal nous comprendre euh, important parce que Sénégal depuis sept mois. il faut que mu sauver Sénégal. Mhm. loolu dinaa wax beneen bi mooy. Mhm. ni mu ni mu indee moom lan la def. dëgg la foofu nag laay wax ni Macky Sall. Mhm. wax na bataay li mu def ay dina wax li mu def. Sénégalais yi xam nañu li def. Mhm. ci lu bax xam nañu également li mhm. def ci mhm. safane bi. ok donc de telle sorte que du lettre bi moy tax. nit ñi xam seen euh, Macky Sall li def ak li mu donc lolu je crois que guddal na lettre bi. trop mu rappeler. la mu def ak la mu tik infra yooyu tout ça. bon je je crois que. Euh, dans euh, dans la truc amna na am na lettre yoo xam ne si législature bi uh-huh. comment on l'appelle euh, amna na lu ñuy def uh-huh. waa takku je crois que mën nañ ko def si uh-huh. législature bi pour wane que ni kat c'est bien que ñu indiwaat Macky Sall parce que def na def mais pas moom dans une lettre individuelle mënoon na def loo xam ne day ëpp impact que de rappeler les mots def bon ben bi nag mooy aussi voilà quoi wax euh, si ñi nga xam ni jiiñ biñ ko jiiñ ah, par rapport aux mm. finances par rapport yooyu yëpp na si mm-hmm. mais waxoon na ko mm-hmm. mais amoon na possibilité wax ko même bu ah. ñëwul amoon na possibilité pour man def vidéo hein, wala def audio hein, voix bi xam nga loolu donc finalement loolu mais beneen affaire bi aussi mooy que ne man pour man li mu bëgg a faj mënu koo faj de l'extérieur pour man ñàkk ñëwam Sénégal mu bañoon a nekk tête de moom moo tane waaw moo tane parce que euh, ñàkk ñëw bi pour mhm. pour man mhm. euh, delluwaat na si eeru euh, Macky Sall Karim Wade mhm. ak li ñu gis limitu Karim Wade ñàkk teew dëgg la parce que ñële bi ñuy jël Karim mu nekk à l'extérieur waa PDS yaakaaroon nañu à part de la bas dina impacté Macky Sall mënul impacté à part de là surtout que lu mu wax rek ñii ñi ngi yàq deram te teraw mën a tontu moi je crois que mhm. bu fekkoon li mu bëgg a faj dëgg soxal na ko mhm. Sénégal ah soxal na ko li ko mhm. metti parce que li mu wax dafa garaaw bu fekkee jaral na ko loolu dafa waroon a ñëw teew dès lors que teewul mënoon na bañ a nekk tëdd liste bu nekkul tëdd liste bu yónni ay tragam